fas yéene jottali ndigal loo xam ne mu ngi bàyyi ko si suñu jawriñ sëriñ Modou Fall di jawriñu daayira Jësbul Murit mi nga xam ne moo dajale sëti Cheikh Ibrahima Fall yi ak soppe yi ak ñi bëgg Cheikh Ibra ñëpp rek si ndigal li nga xam ne sëriñ Cheikh Fall jëmb mi nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Fall moo leen ko jox ngir ñu àndandoo si seen liggéey maam bi di yëkkateendoo di tegandoo ñu daje woon fii tey ni ñu ko baaxoo at mu jot su weeru koor yi bu ñu demee ba mu xaaj njaboot gi yëpp daje ñëw si seen ñëw si sëriñ bi siyaar si ko ndokkeel si ko jébbal si ko seeni i seenu ñaq ngir mu defal leen ko si liggéey bu maam Cheikh Raye bi ñu ñëw fii nag fekk fi sëriñ Saliou Fall mi nga xam ne mooy rakki sëriñ bi di ndawam di ab taalibeem amoon ndigalul dalal ñu nangu suñu suñu liggéey santal santu ñu jox jottali ñu kaddu sëriñ bi ndax kenn ku ne xam na ni sëriñ bi fi mu ne eh, mag mag la eh, ku amul lu dul lenn dang koy sakkanal lolo waral ah ñu amon ndigalul jox jébbal suñu liggey sëriñ saliw mi nga xam ne moo nga xam ne diiru bañu tambalé liggey bi ñu ko and ak mom ñu ñaan sa borom yagal ko si ginnaw magam ju bax gi ji te sa borom wéral ay cëram te luñu ne fi mësa jëf rek and na ko ñun ba mu jeex tak rek wala mu gën ñu sé sori ndax yité ju mu am ak bëgg gu mu am ak gëm gu mu gëm mamam ak ak warma ju mu ñu jox ñun ñi nga xamné ne ak njabootu bopam lañu te nga xamné ne nañ ci lool waye waxtu ñu wo rek buñu ko buñu ko buñu ko joté rek mu dal li and ak ñun sa liggéey ba kon ñukoy sant bu baax té xamni moy Serigne Cheikh ndax moom la serigne bi tek fi ne na nangu suñu liggey gannaaw ba mu nu ko nangulee moom serigne bi kon ñuy sérel serigne bi ne njabotuk bopam gi ñoo delu ci fi tay ci ndigal limu leen joxoon ngir ñu boole seen bop and te xam ne li ñu bokk mënuñu te it ki ñu bokk day ko xam kenn ku ne bëggon na bokk si waye ngoro de a desee wut kenn wala ak njambar nimbalu suñu borom rek mo si boole nit yalla dimbalé nu bolé nu si njabot gogui mu muy mam njabotuk mam Cheikh ibrahim Fall max ni damoo wuñ ko titéro wuñ ko dañ ci sante yalla suñu borom ndax bu nu defoon leneen mënu ñu si dara kon ndokk bi mu ñu bolé si njabotuk Cheikh ibrahim Fall kon ñu si sante yalla suñu borom waaye di sante seigne Touba ak Cheikh ibrahim Fall mi nga xamné ñom day eh, li am jariñ lepp suñu borom tek nako seen loxo te serigne Cheikh jëm mi tay di jëmmi mam Cheikh ibrahim Fall te loolu kenn nattabli wu ko ñu ñu ñu tënku ñun muy fukki buntu kër ak ben si ni mako ko teunké li dalé ci kër Cheikh Modou Moussa Fall ba ci kër Serigne Gunda Fall ak Serigne Saliou Fall mi nga xamné moom rëkk ak mom liggéey bi njabot googu yépp ño daje fi tay ni ko Serigne bi diglé won ñu andando xamné ño bokk lu ñu bëgg no bokk lu ñuy ño bokk nit ñu koy sakko ngir ñun bokk gi dé dañ ko dañ ci sant yalla dañ santiala, sant yalla ndax bu la yalla bolé ko xamanteni ki neexna bokal naa dañ ci da nga ndax manon na ño xamné su bokk ga duñu neex waaye bokk gi de neex nañu seigne Abdoulaye nak dafa waxoon ni bokk nday ak bay mi ngi mel bokk fanaan bu ngeen xey ku ne dem li ak bokk moy bokk pas-pas bokk ak bëgg ñun nak yalla dañu dimbalé biñu bokké nday ak bayit yalla dañu dimbalé ñu nu bokk pas-pas bokk ak bëgg suñu yaakar dara gennu si maam Cheikh Fall suñu yëngutu ak suñu dal lépp Cheikh Ibrahima Fall la yàlla suñu borom dimbaleenu loolu te ñu xam ne day leem njëriñ lépp ngi si loxol Cheikh Ibrahima Fall ngir Cheikh Ibrahima Fall ñëpp nangul nañ ko ñi si biir réew mi ak ñi si bitim réew ñi nga xam ne bokkuñoo moom dara sax nangul nañ ko te jëfam moo ko ko may ngir bi mu ñëwee ko sëñ Tuubaa dafay fekk julli ak woor fekk fi xeeti jaamu yàlla yëpp waaye dafa ñëw indi déyug suñu borom la ko suñu borom tegtal si sëriñ Tuubaa wan ko yoon wam war a àndeek moom ba yoonu murit taxaw ba ak taalibe sosu te taaliba woo nga ma xam ne moo sosu yoonu murit sosu tey foofu kër goo fi dugg tey doxinu maam Cheikh Rafa rek lañ fay roy kon moom àndam baag sëñ Touba suñu borom dëggal na ko te suñu borom barkeel na ko loolee kookee nag moom lañ suñu borom booleel ñu tënku nag si ginnaaw li nga xam ne moo doon ndonoom ndax ba mu fi bàyyi ko suñuy bët gisatuñu ko mënoon nañoo dox doxe nu mel ne wasaaba yi doxe woon diggante ba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam làqoo waaye li nu sëriñ dimbalee Cheikh dimbalee nu ko. mooy ñu xam ne ni moom bu làqoo suñuy bët it képp ku toog bërëbam bii rek jëmmam la fi tooge muy Serigne Cheikh Fall jëmm mi jëmmi maam Cheikh Raye la te moom lañ koy xoolee te mooma sikki sàkk wuñu amu si kon ñu xam ne ñun Cheikh Raye Fall la ñuy liggéeyal kon bu ñu bu ñu booleek si njabootam ñu ñëw mën a am tawféexu jàkkaarloog njabootug Cheikh Ibrahima Fall di di wax ak moom mu nuy dégg ñuy jëf mu nuy gis ñu yëkkati suñu ñaq ak suñu doolee di ko jébbal mënu koy nangul ñun dañoo war a sant yàlla te gën a góorgóorlu feddali suñu laxasaay xam ne yoon wii ñu nekk kat li ñu suñ boroom tànnal mooy ñaqal sëriñ bi rek suñu njariñ foofu rek la ne tuural su aw ñaq sëriñ bi loolu yi nag si la ñu sax dakk rek njabootam gii nga xam ne yar bi nga xam ne moom la fi sëñ Tuubaa ak bàyyi woon muy tërbiya ak tarxiya yar boobu rek moo nekk si njaboot gii toog góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku si ne jaarale nañ la fañ la war a jaarale jàngal nañ la yar nañ la si ak taalibe ba xam ni pépp foo taxaw rek mën nga faa représenter sëriñ bi ndax melokaan woo xamante ni bii amul dara lu si sikk amul dara lu si gàkk njabootam googi nag nga xam ne moo leen digaloon ñu àndandoo ne si kanamam ne si ginnaawam di di yëkkateendoo di tegandoo si ndigal yi nga xam ne mi ngi bàyyeekoo si sëriñ tubaab di rot si moom njaboot googi ñoo dellu si nañ ko daa defee si weeru koor wii ñëw di jébbale si seenub liggéey te xam ne lépp lu ñu jëf tey xeeb nañ ko ngir dañoo jaayanteeg moom àddina suñu dund ak suñu dee dañoo joxe suñu bopp ku jaay lëf te yaakaar njëg génn na sa loxo loolu la sëñ Blaat waxoon ñun ba ñu sukkee dañ ni sëriñ bi jébbal nañ la suñu bopp àddina ak àllaaxira ba nu defee loolee rek lañ jàpp ni moomatuñ suñu bopp dara ku moomatul sa jëmm moomatul loo aju si moomatoo lu aju sa jëmm ja loolee nag moo ne fi ñun te loolee la ñuy dund ñun matérielu sëriñ bi lañ ñun ndawi sëriñ bi lañ ñun alali sëriñ bi la lépp lu mu soxla si ñun rek moom moom yitteem la moo ko moom lépp lu mu soxla rek moo ko moom ñi ngi fi rek fas yéenee doon ay taalibe rek fas yéenee di xeeñtu ndigal fas yéenee di si sax saa su ne fas ñu yéenee jadd lenn luy ndigal fas ñu yéenee sëriñ bi dégguñu si lenn loo xam ne danañu danañu si xeeb wala danañu si yedd ñi toog fii ñëpp ay tànneef lañu kenn ku si nekk mën naa représenté sëriñ bi ngir melokaan wu mu mel ngir yar bu mu am ak teggin ndax dama ne ak taalibe jikko yu rafet yi yàlla tagge rasulullahi moom la Cheikh Rafal dajale tudde ko ak taalibe muy ab taalibe ni mu war a mel dafa war a baax dafa war a yiw dafa war a xamlu dafa wara sel, dafa wara tabe jikko yoy nga xam ne mako lim ndax bari na jikko yoy mo nek ci njabot gi rek gor ak jigen kon ño ñew serigne bi di jébbali seenub liggéey di gëna a feddali nag seenub laxasaay xam ji lanu jii la ñu gën ji jaajuwaat tey jii la ngir top ci ginnaw serigne Cheikh Fall jëm ngir lepp lu mu ñu joxoñ rek lolé ñu ñu dag lolé don don alali serigne bi rek nga xam ne wuñ ci dara nak fa suñu yéene mu ñu ci lenn lu matadi wala lenn lu ak ndigalam fa suñu yéene mu ñu ci kon njaboot gaa ngi nii góor ak jigéen mag ak ndaw jigéen ñi soxna jigéen soxna yi nga xam ne ñoom dañoo booloo far tudde seen bopp baax maam di àndandoo ñoom ñii ñëpp di dem lente kenn ku si nekk ñuy dajaloo di daje di dem lente ko dikk lente di jëflante jëflante bu yiw bu rafet loo xam ne ñun ñii nga xam ne ñoo seen càmmiñ bëgg nañ si ndax bu nu menoon neneen nit mënuñ si dara ndax suñuy nawle lañ waaye ñoom day booloo nañ àndandoo nga xam ne boo leen gisee ñu toog doo xàmmee ku mag ak ku ñu mag ay dañu def seen bop ay xarit gannaaw ba leen yalla boole ak bok ñomit ñu ñuy liggey bu sell nga xamni liggey bi jëf nañ ci jëf ju sel serigne bi ñukoy koy serigne bi di ñaan serigne bi ñaanal leen nomit kenn ku ci nekk fa nga ne dafa liggey yalla barkelal lako barkelal lako ba lo ci seenu rek nga am ci lu kawé sa njort njabot gu goor gi fi togit ak ñi nga xam ne teewuñu te nga xamne ne yitte wala ñu nekk ci yeneen ndigal motax teewuñu nga xamne ñun ñi ñoo leen fi teewal ñoom dañ ñi ngi ni serigne bi ay Baye Fall lañ yoo xamante ni Cheikh Rafa rek lañ bëgg te lii seen yitte mooy ñaqal Cheikh Ibra rek sëriñ bi ñaanal leen bañ am doole sëñ bi ñaanal leen bañ am kàttan sëñ bi ñaanal leen bañ amuk wér bañ am xéewal yoo xam ne waxtu wu sëriñ bi joxoñee rek lu mu bëgg rek bu geesoo rek yem si ñoom ñu def ko na ko na na ko sëriñ bi bëggee loolu mooy kàddu yi nga xamante ni moom la ma sëriñ Modou euh, yónni woon xam naa lu si dëng rek mën a wala lu si lu si gàttin mën liggéey yi mu ñu santoon it muy daaray daara jee nga xam ne ñu ngi koy tabax muy daaray maam Cheikh Ibrahima Fall nii ñu ko ànd teew fii noonu lañ ànd ci liggéey bi rek góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne noppalu woo sakkaloo sa bopp it aw sas woo xam ne dafa am foo ko tënk déedéet mooy liggéey bi saa su ne lu rot rek ñu tàbbal ko si ngir danoo bëgg mu mel na ko sëriñ bi bëggee ba bu ñu ko ko jébbalee xolam sedd si nun te lépp lu nu woon ginnaaw rek loola fas yéene li ñuy dëgmal gàcceel loola si si rafetaay ak baaxaay ak teddaay loolu sëriñ baa ngi koy wax di ñaanit it ñu ñaanal mbooloo mi rek njaboot gaa ngi nii rek njabootu Cheikh Ibra la di ay tànneef ndax natteble wun ni li am njëriñ lépp mu ngi si loxol maam Cheikh Ibrahima Fall suñu maam te gëm nañ ni waxtu wu ñu jéggee ab tànk rek am nañu topp suñu ginnaaw ñoo xam ne fu ñu teg suñu tànk rek ñoom jàpp nañ ni foofa lañ ko war a teg ngir ñun rek la ñuy xool ñun rek ñooy seen royuwaay kon sëriñ bi ngeen ñaanal ñu ba bu ñu benn yoon bu ñu dëng benn yoon bu ñu wàcc benn yoon yoon mi nga xam ne mooy yoonu kër maam Cheikh Ibrahima di la ñaanal nag Serigne Saliou yàlla yàggal la fi te wéral la yàlla roofaan la kattan akuk wér barkeb Cheikh Ibrahima Fall barkeb Serigne Moustapha Fall barkeb njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall noonu lañ koy ñaanale sa sa sa rakk yëpp Serigne Idali Fall ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax ku ku ñu jàppale woon si liggéey bi la àndoon kook ñun si sa di ñaanal njabootu Cheikh Ibrahima gépp li dalee si kër Serigne Moustapha Fall ba si kër Serigne Gunda kër maam Saliou Fall njaboot gi rek a nekk fii waaw ay sëti sëñ Moustapha ñun jàpp nañ ni si kër Cheikh Ibra ni ma doon waxee rek garab la goo xam ne ay bànqaas rek dañ cee ko bànqaas yi ñoo représenté kër yi nga xamante ni ñooy kër maam kër kër kër kër Cheikh Rafal yi waaye Cheikh Rafal moom genn garab rek la ñëpp si bokk ñëpp dama leen di wax ne man li tax bëgguma sol déguisement man man bëgguma ñu naan nja kër sëñ Modou Mbenda nga nee kër sëñ Moustapha la nga ne kër sëñ Abdou Sakkoor nga ne déedéet loolu day mel ne ak la li ñu war mooy ñu xam ne ñun njabootu Cheikh Rafal lañ amul ñaar amul ñett amul ñett ci Serigne Cheikh Fall jëmm mi moy Cheikh rafal tay kon ñu ngi sant bu baax ci di len gërëm tay jéggulu ci wax ji lepp lu ci dëng man a euh, euh serigne Modou lim ma digaloon ma diko def ci mbaxam non la ma waxé won rek ma ngi tup tay jéggulu di ñaan yalla serigne bi nangul ñu liggéey bi té yalla nañ fi téwaat na gën ni déwén te Serigne Cheikh jëmb mi ñuy ñaan ci barkeb Cheikh rafal mamam maamam Cheikh Modou Moussa Fall barkeb ña topone wajuram bu baax wa yalla ko suñu borom rofaat katan bu wir wir wir yalla ko sama borom rofat katan bam delu melne abu hambane barki mam Cheikh Raf seigne yalla man nako te sañ nako te bu ko Ken kenn amul kenn ku koy kalamé ñing koy ñaan yalla suñu borom ci seen barke yeen ñepp nak yeen ñu tok fi di dérati mam Cheikh Ibrahima Fall waaw ñing leen seigne badami momit di suñu kilifa euh, di suñu wajur and ak ñun momit euh doon suñu kilifa te ñu doy loko te waxam rafet lol te nga xamne Cheikh Rafa rek lay dundu momit ñing koy sante bu baax diko séral bi di sante mbacke Ngunda moom ñu ngi koy sant di ko seeral sëriñ bi ak sëñ Fallou Cheikh ak sëñ Falloum sëñ Modou Aminta ak sëñ Moustapha seen addiya moo jiitu ci liggéey bi ak njaboot gi yëpp rek bu ma leen limee damay juum waaye sëriñ bi de ñu nangul Cheikh Rafal ñëpp daal ànd na yoog ñun si ndigal li nga xam ne sëriñ Cheikh Fall jëmb joxoon nañu ko. junni la ak akum akum xar am xar xar ma nga ne si ak ak ñetti ginaar waaw téeméeri junni la juróom fukk ak juróom benn junni akub gàtt auzu billahi rajim rahim ngi di nuyu sëriñ bi ne mi ngi di nuyu di leen jottali nuyoob sëriñ bi di leen jottali nuyoob sëriñ bi muy sëriñ Cheikh Fall fi togal Cheikh Ibra jëmb muy Cheikh Fall fi togal mam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di xamal ne. ñu ngi leen di xamal ni. seen melokaan wii ngeen mel. seen melokaan wii ngeen mel. ba ngeen tàmbalee ba fi mu ne. ba ngeen tàmbalee ba fi mu ne. dara mosu cee dellu ginnaaw. dara mësu cee dellu gannaaw. boole ngeen seen bopp. nee na boole ngeen seen bopp. àndandoo. àndandoo. te jëmm Cheikh Rafaal tax. te jëmm Cheikh Rafaal tax. xeebante leen. xeebante leen. yebantewu leen. yabante leen. bëggante ngeen itam. bëggante ngeen itam. loolu moo waral. loolu moo waral. ànd gi mën mel nii mu mel. ànd gi mën mel nii mu mel. ak nii mu yàggee. ak nii mu yàggee. te waxtu wu ngeen fi teewee. te waxtu wu ngeen fi teewee. na ngeen fi teewee ren. na ngeen fi teewee ren. mooy romb na ngeen fi teewee woon daaw. mooy romb na ngeen fi teewee woon daaw. loolu. loolu. jëf yi ngeen di jëf di ko jébbal ci sëriñ bi. jëf yi ngeen di jëf di ko jébbal ci sëriñ bi. wane na ko. wane seen ànd gi ngeen àndit seen ànd gi ngeen àndit di góor ñi di góor ñi di jigéen ñi di jigéen ñi itam wane na ko itam wane na ko ndax góor ñi kat ndax góor ñi kat ñoo diw góor jiitu ñoo diw góor jiitu waaye jigéen ñi topp ci seen ci ñoom waaye jigéen ñi topp si ñoom doon seeni jigéen. doon seeni jigéen. dafa mel ni mënuñu leen ci. dafa mel ni mënuñu leen ci. liggéeyub Cheikh Ibra bii. liggéeyub Cheikh Ibra Fall bii. kon doon jigéen. kon doon jigéen. lu xam la nga du xam la nga doon. du tee xam la nga doon. ndax ñoom Cheikh Ibra. ndax ñoom Cheikh Ibra. ni ko sëñ daam mi waxee léegi rek. ni ko sëñ daam mi waxee léegi rek. genn garab la. genn garab la. garab nag. garab nak day ami cer day ami cer amub dat amub dat yéen nag xam ngeen lu ngeen def yéen nag xam ngeen lu ngeen def da ngeen a mel ñu delo ci wat Cheikh Ibra da ngeen mel ñu delo ci wat Cheikh Ibra manam garab ga manam garab ga ndax li ngeen def ni ndax li ngeen def ni di fukki buntu keur yi di fukk buntu keur yi keur Cheikh Ibra ak benn di keur mam saliw keur Cheikh Ibra ak benn di keur mam saliw ño bolo ni ño bolo ni di bolé seeni jëf di bolé seeni jëf bolé seeni xol bolé seeni xol àndandoo àndandoo lu sëñ bi ne lu sëriñ bi ne ngeen nekk ci ak moom ngeen nekk ci ak moom ndax yéen kat ndax yéen kat sëriñ bi sëriñ bi sonalu leen ko ci dara sonalu leen ko ci dara ndax mënoon nanu ndax mënoon nanu waxtu wu ne waxtu wu ne mu naa ma saaliwu kaay mu naan ko saaliwu kaay àndal ak mëgéy àndal ak mëgéy wala àndal ak sëriñ asan wala àndal ak sëriñ asan wala àndal ak kenn ci gaa yi wala àndal ak kenn ci gaa yi dem gisal ma procureur dem gisal ma procureur wala nga gisal ma commissaire wala nga gisal ma commissaire ndax sàngam ci njaboot gi ndax gone sàngam ci njaboot gi def nag li xóor def nag li xóor loolu ma a am loolu mës a am xëy na ndogal du man a ñàkk xañ na ndogal du mën a ñàkk waaye yéen de seen doxin wii ngeen di doxee waaye yéen seen doxin wii ngeen di doxee niruwul dara loo xam ne lii nii niruwul dara loo xam ne nii di lu mel noonu mën na see juddoo lu mel noonu mën na see juddoo loolee nag loolee nag. mooy noppal sa kilifa. mooy noppal sa kilifa. noppal ngeen sëriñ bi lool. noppal ngeen sëriñ bi lool. ci fànn googu. ci fànn googu. yéen koy jàppale it. yéen koy jàppale it. ci ndigal yi nga xam ni. ci ndigal yi nga xam ni. day suñu wayjur ñun ñëpp. day suñu wayjur ñun ñëpp. toogal Cheikh rek fii mu ko toogal. toogal Cheikh Ibrahima fii mu ko toogal. ngeen ne ci ginnaawam. ngeen ne ci ginnaawam. ne ah nun de ay gone lanu. ne ah nun de ay gone lan. waaye kat bi fii mu toog. waaye kat sëriñ bi fii mu toog. noo ko bokk. noo ko bokk. gannaaw noo ko bokk nag. gannaaw noo ko bokk nag. nu itam. nu itam. des ginnaaw. bu nu des ginnaaw di dajale seenu ñaq di dajale seenu ñaq néewoo bari néewoo bari xëy na seen loxo jotagul seen ginnaaw xëy na seen loxo jotagul seen gannaaw si nam war a mel si nam a mel waaye su na meloon waaye su na meloon daanaka ndogo yi yéen a koy togg daanaka ndogo yi yéen a koy togg te loolu mën naa koo seere te loolu sëñ ne mën na koo seere teewul ngeen boole koog leneen ndigal te teewul ngeen boole koog leneen ndigal daaray Cheikh Jee daaray jannatul mahwa ci ngeen ne ca ngeen ne sa mënoon ngeen caa jàpp rek mënoon ngeen saa jàpp rek ba bu lii amee ba bu ah, nun ko sëñ bi joxoon nañu nañu ndigal nga ne ñun kat sëñ bi joxoon nañu ndigal kon ndigal loola kon ndigal loola dañu ko féete woo rek mënoon a xew nag ndax ak lu mënoon a xew nag te andu leen te andu gënalul sëriñ bi waaye lépp nag waaye gii ngeen ànd fexe ba Cheikh Ibra doonaat kenn fexe ba moo gën a neex sëriñ bi a ndax lii ngeen fii indi ndax lii ngeen fii indi da cee bokk da cee bokk ndax yéen ndax yéen dereti yoon wi ngeen dereti yoon wi yoon wi ngeen meññee kon su ngeen dee indi seenu ñaq ko ko jébbal. di ko ko jébbal. loola war naa am. loola war naa am. ndax da ngeen a xam ni. ndax da ngeen a xam ni. fu ngeen ne rek. fu ngeen ne rek. Cheikh Rafal ngeen fa nekkal. Cheikh Rafal ngeen fa nekkal. ngeen mel nii day. te nii ngeen mel nii day. neewaa na ko dem ci genn kër. neewaa na ko dem si genn kër. genn kër nag ci ci ci ci ci ci këri diine yi. genn kër nag si këri diina yi. fekk fa àndandoo gu mel nii. fekk fa àndandoo gu mel nii. ndax yéen seen maam. ndax yéen seen maam. dafa dindi. dafa dindi. kujje kujje. ndax bu jëkk. ndax bu jëkk. nit bu masaa bokk ak nit bàyyi. nit bu masaa bokk ak nit toogal ci suuf du ko toogal fi suuf da koy wan ne ko gënoo ma ndey da koy wan ne ko gënoo ma ndey di wujjeeg moom Cheikh Ibra naka dindi loolu Cheikh Ibra naka dindi loolu looloo tax seen melokaan wi ngeen mel geneen kër mënu nee mel lu dul kër Cheikh Ibra Fall sëñ bi nag mi ngi leen di sant sëñ bi mi ngi leen di sant mi leen di xamal ni daal mi ngi leen di xamal ni daal seen doxin wi ngeen di dox seen doxin wi ngeen di dox bu yàlla defoon bis lu ko neex bu yàlla defoon bis lu ko neex du du du am jiixi jaaxa. du am jiixi jaaxa. ci ginnaawam ci ginnaawam. kon yoon wi. kon yoon wi. ni ngeen ko jàppee. ni ngeen ko jàppee. noonu rek la noonu rek la. jëmee leen ko kanam. jëmee leen ko kanam. te xam ni yéen a ngi tege ci yoon wi. te a ngi tege ci yoon a ngi dox itam. a ngi dox itam. sëriñ baa ngi leen baa ngi leen di ñaanal nag. bëgg rek bëgg rek ngeen amug wér ngeen amug wér am fan yu gudd am fan yu gudd te am ah, dooley poos te am dooley poos ba yéene yi ngeen ko yéene ba yéene ji ñu ko yéene ànd ak moom ànd ak moom defal ko ko defal ko ko te du dara loolu rek fas ko yéene liggéeyal te du dara loolu fas ko yéene liggéeyal rek kii ngeen àndal itam kii ngeen àndal itam waajur la ci yéen waajur la si yéen ndax sëñ daam saali woo ko jur ndax sëñ daam saali woo jur te maam saali ak Cheikh Ibra te maam saali ak Cheikh Ibrahima xam ngeen ni ñu demee xam ngeen ni ñu kon su àndee ak yéen kon su àndee ak yéen ku ñëw defee ni seen morooma ku ñëw defe ne suñ morooma Ah, loolu lépp ak wayefam loolu lépp ak wayefam rek la. xamit ni lii ngeen ànd. xamit ni lii ngeen ànd. loolu rek mooy dëgg. loolu rek mooy dëgg. kon sëriñ bi. kon sëriñ bi. yow it ngi lay sant. waaw yow it gone yaa ngi lay sant. waaye sëriñ baa ngi lay sant. waaye sëriñ baa ngi sant itam. ñun ngi lay sant. ñun itam ñu ngi lay sant. di la gërëm. di la gërëm. ah sëñ bi nga xam ne mooy seen jëwri nit. sëriñ bi nga xam ne mooy seen jëwri itam. di sëñ Moodoum sëñ Amdi Yaasin. di sëñ Moodoum sëñ Amdi Yaasin. ku farlu la. ku farlu la. ku ku ku amuk jàpp la. ku amuk jàpp la. ku amuk bëgg la. ku amuk bëgg la. ndax bi eh, bii bii fii nu demoon biig rek ndax fii nu demoon biig rek. kër Soxna May. kër Soxna May. ba mu ko yëgee. ba mu ko yëgee. dafa daa di woo. laaj ma ne ma ah, sama baay ko ne sama baay day. mëgee dafa woote woon di wax ni. kër Soxna May. dañoo am bis. bi dañ koo tuddee maam Cheikh Ibra. te bis bi dañ koo tuddee maam Cheikh Ibra. te te sëriñ bi daa bëgg. ñu teewale ko fa. ñu teewale ko fa. ma ne ko waaw loolu la. ma ne ko waaw loolu di dëgg la. mu ne moom sax de bu sañoon. lu mel noonu soo amatee rek. yëg naka waa daara ji yëg ndax nun kat léegi ay mag lañu ah léegi ay mag lañu daanaka mën nañ leen a wàcce ci leen a wàcce ci lu bari ba yu mel nii ba yu mel nii su amatee su amatee nun nooy dem doxi ko nun nooy dem doxi ko duñ leen duñ leen ci yëkkateente nga xam ne duñ leen ci yëkkateente waaye nag li ci sëñ bi jublu dara lu dul rek. li ci sëñ bi jublu du dara lu dul rek. gannaaw Serigne Touba daa jox Cheikh Ibra gannaaw Serigne Touba daa jox Cheikh Ibra mu mu woote ko. mu woote ko. su mënta dem moom ci boppam. su mënta dem moom ci boppam. rakk yi faaw ñu ànd ak yéen. rakk yi faaw ñu ànd ak yéen. xam na ni man ngeen wax mat ngeen lépp. ci darajey Serigne Cheikh jëmm mi fi nekkal maam Cheikh Fall. yàlla yàggale sunu yéene. yàlla yàlla àggale sunu yéene. ndax xam naa ni yéen ñii day ngeen wutu ginnaawam ku ngeen wutu ginnaawam xelam war naa dal kon jërë ngeen jëf boole gii ngeen ma ci boole itam boole gii nu ko si boole itam ba bi waxtu bu bi amee ma yëgal ma ko ñu woo ko yëgal ko ko ànd ak yéen ànd ak yéen ngeen jël seen addi yi teg sama loxo ngeen jël seen addi yi teg si loxoom mu di leen ko jottali sëriñ mu di leen ko bi loolu rek dafa sedd xol loolu rek dafa sedd xol te da daan dégg sëriñ Cheikh Fall di wax ne te da ku si teg sa bët da nga am ci da am sa yool ba man mii ngeen ko jox. kon moom mii ñu ko jox. dimbali ngeen ma dimbali nañu ko. kon ñu ngi leen di gërëm de. kon ñu ngi leen di gërëm baax. maa ngi dolli sama doom yu jigéen yi itam. mi ngi doomam yu jigéen yi itam. gën leen a jàpp rek. gën leen a jàpp rek. gën leen a góorgóorlu rek. gën leen a góorgóorlu rek. yéen ak ñoom yéen noog yéen day. noog yéen day. noo yem ci cër bi noo yem ci cër bi. Cheikh Ibra danoo meññ. Cheikh Ibra danoo meññ. leen rek leen rek. cër bi nag cër bi nag yàllaa koy def yàllaa koy def mooy def ngeen di jigéen mooy def ngeen di jigéen def na nu duy góor def na nu duy góor waaye noo ci bokk yem waaye noo si bokk yem ku jàpp rek ku jàpp rek te bàyyi woo te bàyyi woo da nga am la nga bëgg da nga am la nga bëgg kon ñu ngi sant ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp. jërëgeen jëf jërëgeen jëf. yàlla na ngeen ko yàgg a def yàlla na ngeen ko yàgg a def. te yàlla nañ ko a fekkee. te yàlla nañ ko yàgg a fekkee. ànd ak yéen ànd ak yéen. ci lii ci seen liggéey bet yàlla na ko yàlla yeggale. ba ngeen ni sëriñ bi. ba ngeen ne ubbi. a noppi na yàlla na leen ko yàlla defal. waaye nañ fekk lépp nag. waaw waaw suñu darajay maam. jërëjëf Fall. wax ji nag dafa bari. waaye lépp. yéene rek a ko waral jërë ngeen sëñ Falloum sëñ Modou Minta sëñ Moussa Mbar ah, sëriñ Cheikh Ndigal ah, sëñ Fallou Cheikh sëriñ Mbacke Ngunda mi ak mbooleem njaboot googu yëpp nga xam ne su ma limee damay juum ñooñu ñëpp dañoo ànd ak ñun ñii si liggéey bi te du suñuy kilifa nga xam ne ñoom mënuñoo teew fii ak ñun ndax am nañ ay responsabilité waaye nag kenn ku si ne eh, nangul nañu liggéey bi te ànd na seeg ñun say ren ma bàtti nan kon loolu ñu koy seeral sëriñ bi xam ne moom sëñ bi daal ndigal li joxoon sëtam yii muy mag di ndaw ñepp ngi ci rek ñaanal leen rek ñu ñu ñu ñu man ko agalé fam bëgg rek waaw waaw lool lool lool la woon barke sëriñ